amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax jàkkaarloo ak yéen ni ñu koy defee rek saa su ne di leen dalalal ay ndaanaan di leen dalalal ay kilifa yi nga xamante ne yéen ngi leen bëgg a gis fii nga xamante ni nag moo di Sénégal Buzz 221 ànd ak VIP people ak suñu naataanga boobu di Setsima TV mbokk yi tey ñu ñëw rek seet si kilifa gu mag di Serigne Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba. di naanaan loo xamante ne nag macha allah ràññee nañ ko ci réew mi ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy def ci wàllum faj tey nag ñu seet si ko dalalaat ko rek dañ koy bàyyi mu nuyoog boo ko internet yi cheikh bi. ñu ngi bu baax tey moom. Uh-huh. juum nga. Uh-huh. fooral nga ma tamit. Uh-huh. da nga ne Serigne Abdoulaye Diallo. mu Serigne Touba. naka la Serigne Touba di nekkee Serigne. man ma nekk Serigne.

te mosoo ci am gàcce chaque jour ngay gën a xoolaat sa bopp di di poser question di naan pouvoir bi fan la jógee lan la liggéey yàlla ba am lii chaque jour que Dieu fait tu te poses ce genre de questions euh, di gën a redoubler aussi d'effort ci li ngay def euh, c'est une fierté juste quand même que jusqu'à présent l'appel n'a pas été entendu comme il le faut mm-hmm. moo tax it parfois ni invité sites yi di waxtaan ak ñoom mm-hmm. pour que ñu tassare xibar bi mm-hmm. xibar bo xamantene li ma yàgg di wax rek lu médecine moderne mënul fajj lay fajj waaw koku yalla mako may nonu ba alhamdulilahi rabbil alamin ay docteur la ñuy faj ay docteur parce que docteur yi aussi dofuñu boo fajee seen patient yoo xamante ne dafa dafa leen télé woon des années patient bi ñëw indi résultat ne fii laa ko jëlee ñoom tamit am na ay docteurs yoo xamante ne seen xol dafa rafet bu ñu gisee ko am même cas dañ ko yóbbu foofu mais parfois nag ñoom docteurs yi seen bopp ñooy am problème de tension wala problème de diabète wala problème d'hépatite après ñoom ñu ñëw faju aussi

parce que tubaab yi dañ ko ne vas-y comme tu as dit au Sénégal am na koy fay diabète ak arthrose vas-y mm-hmm. on va attendre on va t'attendre boo wéree boobaa <laughs> ñu jël suñu position mm-hmm. Mané ne ko nag euh, je suis ravi parce que man lii laa bëgg je suis un homme de défi mm-hmm. waaw je suis un homme de défi bëgguma dara lu yomb te amul sax lu fi jafe nag waaw parce que yor say garab yor sa déggu li ci dox je crois que yàgg ngeen mo interviewé depuis un an mos mhm. leen dégg lu ñaw mosoo leen déglu ñaw wax na la sank or antenne nee naa la ñii di mbili mbili mbili ci YouTube bi yëpp mhm. ba créer ay chaîne YouTube mhm. dinañ tëj seen làmmiñ man kese maa fi des. yow kese yaa fi def comme ni ma ko waxee sànq rek mbégte bi askan bi am ci yow mu doon loo xamante ne jàng la wala xam-xam lu suñu borom dénk la ba nga mën ko partager ak ñoom. nit ki loo mënta am. même lo li nga jëndal sa bop sa xaliss mm-hmm. yalla la ko dénk mm-hmm. nit mënulul bopam dara mm-hmm. lepp yalla la motax may nan client yi ñew leen gis ci man yalla bi ne ci man man mi gis yalla bi ne ci yeen et c'est pourquoi d'ailleurs je ne reconnais même pas mes patients duma sax xamé client yi mun nga fi trois fois duma xamé so xàmmee sa ordonnance rendez-vous dama lay dàq peut-être que bi nga mujjee ñëw fii c'était bien reçu nga foo ne kii moom. xàmmee na ma xaritoo nañu nga demee noonu. Mhm. bonne image ni ma lay accueillir nga foo ne boo fi ñëwaatee semaine prochaine dinaa la xàmmee du ma la xàmmee. Mhm. papier bi rek lay xam. Mhm. j'ai même pas le temps des amitiés avec mes patients aw oh, ma temps boobu. parce que je suis authentique ku ñëw ni ma mel laa lay woon. su ma la doyuloon dooy ñëw ci man gis naa la maa ngi xoolee bët ku koo xamante ne doy naa ko mhm. xam naa ne kilifa nga parce que ñi fi ñëw yëpp sànq li ma waxoon sama liggéeykat bi rek ma ne ko mhm. il faut nga respecter ñii di ñëw fii mhm. parce que ay kilifa ñu fi ñëw ñu bàyyi seen kër ñu la daqale kër sax ñoo fi ñëw donc man benn bët bi laay xoolee patient benn comportement bi laa amee patient bi lu ñu sëkk nag mooy faj ko man je traite je ne soigne pas astafurlah man je soigne je ne traite pas mhm. les autres traitent mhm. moi je soigne une maladie mhm. dégg nga bu baax dégg la bu baax voilà macha mais loolu aussi tamit euh, lo am solo la mais dañu seetlu loo xamante ne à chaque fois dañuy gis nit ñi dañuy am jafé jafé yo xamante ne bu ñu demee ci hôpital yi du ñu am safara buñ ci bëgg mais ndimbal la buñu ñu jàkkaarloo yow loolu loolu bàyyi waaw ñëpp xam nañ ne li lay faj ci sa dëkk lay jógee te garab yi ñuy gis fii fu ñuy jógee Europe loolu fajuñu te lum la faj am beneen jàngoro lum la jox dañuy naan médecine traditionnelle dafa am effet secondaire xanaa kay yeneen médecine moderne moo ëpp effet secondaire ko di naan day joxe AVC paracétamol bu ëpp day joxe AVC am na ñoo xamante ne dañuy seen doom yi dañuy judd fekk ñoom amuñ jabet seen doom yi am jabet à cause de comprimés de rhumatisme yi ñu leen doon jox hôpital mm-hmm. boo amee yenn douleur yi ay polyarthrite rhumatoïde wala yenn douleur arthrose yi ñu lay wala polyarthrite rhumatoïde ñu lay jox ay corticoïdes mm-hmm. am na effet secondaire bu yàggee da nga am infection pulmonaire waxuma sax waxu rein yi waxuma waxu pancréas yi mm-hmm. c'est n'importe quoi moi je fais de la naturopathie dama xam garab di fajee garab xam dosage duma faj nak un enfant de moins de six ans parce que sama jang agul foofu duma faj aussi femme enceinte sama xam-xam agul foofu et j'ai même pas le temps de faire des recherches sur ça xana nak femme enceinte bo xamantene ne lu mu ëmb mu tour lu mu ëmb mu tuur mu ëmb mën na jël garabu siti bi pour ëmb bi baña tour tuur kooku mun naa la jox garab boobu ci grossesse bi wala ma jox ko garabu hépatite bi durant la grossesse boo amee hépatite B wala ma koy faj jabet bi durant la grossesse ñett yi daal xam naa ne mun mais les maladies rhumatismales wala garabu colopathie mun ma ko jox une femme enceinte c'est impossible Drapano, yooyu yëpp dugg na ci SSI ASI yooyu yëpp dugg na ci nerf sciatique arthrose rhumatisme polyarthrite rhumatoïde yooyu duma ko jox bu koo xamante ne femme enceinte la dinaa yërëm parfois xale mhm. de moins de 6 ans ci problème asthme ma xam ne ki asthme dafa chronique déjà te demul fenn mhm. ma jàppale ko ma faj ko asthme ma defal ko benn dosage xale kii cas de force majeure lay doon mhm. wala xale boo xamante ne biir bi day métti di métti di métti rek kooku mun naa ko jàppale aussi ma jox ko garab biir buy métti garabu colopathie bi ma diviser ko en trois jox ko ci benn dosage. Mm-hmm. faqat. yooyu aussi gis nañ ne nag feebar yu sonal sénégalais la rawatina tey génération bi nga xamante ne aussi ñoo fi nekk mi hépatite bi ak colopathie lan moo ko mën a jox nit. colopathie. Mm-hmm. <laughs> di neewoon nañu médecine moderne de colopathie kenn mënu ko faj. Mm-hmm. fen loo naa leen de ñëw léegi dañoom ñëpp à genoux nañu hmm. ñëpp hmm. Europe 400 sachets par mois ça fait 6 millions hmm. américains yi dañuy commandé dañuy gis sénégalais bu Europe commandé 20 sachets garab ne non seulement da ngay mais da ngay sa parce que biir mooy nit lu tax kolopati bi bëri biir yu métti bari bëri maa yi bëri ngelawal yi bëri hémorroïde yi bëri c'est parce que dañuy lekk li ñuy lekk ci biir bi lay des te amuñu temps di déparasité wu blanc yi nee nañu l'homme doit se déparasiter une fois par trois mois ñoom li ñuy lekk melul comme ni ñuy lekk ñu koy def chaque trois mois yow yaa ngi nii est-ce que mos nga déparasité bi nga judd ak ak ak tey déedéet mosoo ko def

bu lekk lii bu lekk la man ku ma jox garab benn yoon nga naan ko ci lekk si loo neex ngay lekk lu la neex ngay lekk mm-hmm. mm-hmm. li nga terewoon yëpp colopathie bi indi hémorroïde damay xool télé parfois ne zappe rek dajeek benn fajkat su may lekk nii mm-hmm. parce que su lekk rek laay taal télé man awma temps télévision <laughs> mais damay ree nit ñi naan dañuy faj hémorroïde dañuy damay dégg ñuy faj hémorroïde mënuñu faj colopathie c'est impossible mënul nekk kenn mënul faj emory jaaru ci biir bi c'est pas vrai mhm. emory li nga gis ci anus bi du foofu mooy ame emory bi emory bi ci biir bi la nekk c'est plus sérieux que ça mhm. su ma la joxoon garabu hémorroïde tukku raxasuma sa biir d' ici six mois dama koy amaat mhm. je crois am na benn audio bi ma bi ma dégluloo woon benn émission bu la neexee ma audio boobu benn boo xam dama ko faj emory muy naan Cheikh Talif ki def tegtal. Mhm. mu ne demal nga interroger docteur Diallo. Mhm. kooku neexul ba neexul moo mën gars yi. Mhm. amul fu ma fajuwul hémorroïde Cheikh Talif boobu moo ma transfert message boobu. comprendre amul fu ma demul faju mais neexul ba neexul waa ji moo mën gars yi. yóbbu naa fa yónni naa fa aussi ñaari nit ñoom tamit nee nañu macha allah yenn naa fa ñaari nit ñu faju jabet ñoom tamit nee nañu macha allah mais nit mënul faj. hémorroïde jaaroo ci biir c'est pas possible mhm. comprendre nga mënul nekk mënul nekk euh, biir bi bu tilimee mooy indi déglul waaw ah, Cheikh naka fay waa lépp jàmm alhamdulilah mais Cheikh neexul ba neexul mais yéene woon naa daal nga ama contact Cheikh Abdou kii docteur Diallo boobu Diallo leen trop fort vraiment ni mu ko waxee noonu la demee quoi man de yàlla xam na ni hémorroïde bi bi ma ko jëlee hémorroïde bi essayé naa ko mais ba ma ko jëlee ba mu jeex ba pare ba léegi nii sax gisatu ma te xoolal gars yi amul ku ma naanu garab hémorroïde même gars yi évité fii ñëpp ñëpp presque jël naa seen garab hémorroïde ñëpp mais boo ko dee naan ni mën nga am am jàmm mais boo boo paree rek bu garab yi jeexee rek day déclenché waat mais docteur Diallo wax dëgg yàlla li ma ci am mosuma ko am ci kenn tey boole naa ko ay nit ci hémorroïde boole naa ko ci diabète boole naa ko ñaar nit jabet ñëpp dana am résultat. mooy daal vraiment jàll bëggoon naa nga moom contact lool lool lool. lii dégg kii du Cheikh Tall du photo moo nekk nii. numéro moo nekk nii. xam nga donc inventé wu ma dara. moo ma yónni vidéo yi euh, yi. mais euh, j'ai même pas réécouté. bi ngeen di commencé. am na benn femme bu nekk Italie. Mhm. bu yónnee message ne. kii laa ko doon faj. hépatite B. ne ma hépatite laa ko doon faj non seulement hépatite am bi wér na mais même rein mi wéraale na. Mhm. déglu. bi ma ko. asalaamaaleykum. Wally ça va na nga def hôpital laa jóge neel docteur maa ngi koy sant di ko gërëm moom dafa ne day du faj rein docteur day faj rein. Mhm. parce que dama amoon feebar rein benn benn feebar mhm. bi mais damaa wér. te man hépatite laa doon faj ñëw docteur day faj rek. macha allah lii doon ay témoignages yu am solo yoo xamante ne eh, xëy na tey ñi nga xamante ni tey seen aajo faju na mu jaar ci yow tey ñoo def eh, seede bi mais ñi nga xamante ni tey mën naa ni tey. déglu déglu encore. wala man damaa xamatul lan lay wax. Mhm. man damaa xamatul lan lay wax docteur. Mhm. dama xam ne man. Hmm. Kan sama ma hmm. Dakar la koy defé bu soba yalla dina ñëw hmm. kenn du ma waxal may waxal sama bop neel docteur day fecc rein man na ko wax. docteur day fecc parce que amna ay garab yooyu jël. Uh-huh. mu ngi melni sama garab ulcère. je me suis rendu compte day fecc pancréas. Uh-huh. amna ko ku France rien que pour ça. Uh-huh. dafa yone ordonnance mané ko fajj na ulcère 4 semaines duma la joxar garab bi mu noko jëlat moom nag mu au lieu mu muus mu yónni keneen mm-hmm. kenen ki melni ni day faj ulcère jël garab mm-hmm. mu insister il a fallu mu dag bi yam ñëw ne dama bëgg ngir yalla yent bi nga dolé ma garab ulcère parce mo moo faj sama sama pancréas mm-hmm. je ne dis pas que mun naa faj rein mais ce que je peux déduire de ça c'est que garab hépatite day faj rein et puis c'est pas la seule qui ça fait trois personnes yu mako wax kii waxuma ko sax uli la doon transfert sama secrétaire doon transfert message bi parce que deux ans ngi nii laal le téléphone messagerie démb la commencé de laal whatsapp bi parce que dafa am lu xew moi tax ma jël whatsapp bi en charge mhm. ba ma gis ko ma wóolu ma jox whatsapp bi parce que y avait wuli wóolu naa là mhm. mais je ne peux pas admettre que am ay ñoo xamante ne dañu yónni message du ñu réponse mhm. parce que boobaa man maay fautif bi que naa fi benn message sànq benn waaye buy naan ki lay faj de bu dee dalay daw xanaa nga wekku ci weer sa loxo si yàlla rek xam nga donc xam man man yoruma mhm. donc ce qui veut dire que moom day message kenn du ko tontu. Mhm. démb damay gis messagerie yu bëri message yu bëri yu ñuy répondul dama toj iPhone 11 am. Mhm. bu la neexee ngeen coupé ma indi iPhone 11 bi ngeen gis. dama ko toj. donc depuis dem dama jëlaat pièce boobu defaat ko sama iPhone bii 12 bi ma def ko ci. léegi sax la yëg whatsapp 959 bi fonctionnel ndekete ñaari PC ñaari whatsapp la amoon ci téléphone 203 bi la yor depuis demb la ne koy transfert dama le transfert yor message de témoignage bi mhm. demul ma n'est pas connecté depuis hier 9h38 fofu la ne amul whatsapp deuxième bi ngeen fekk ñeneen ñi di activer whatsapp 959 pour ñi nga depuis démb aussi ñu fay envoyé message jotuñu mhm. réponse ñu xam ne loolu la woon macha ci ay euh, leeral rek pour ñi nga xamante ne tamit euh, ñoo di euh, bàyyi xel bu baax a baax ab Abdoulaye Diallo mais ba tey rek comme fi mu doon waxee sànq rek tey dañuy gis li nga xamante ne tey suñu borom def dénk na ko ci ay may ma wax ko sànq ay nit dañuy dem hôpital du ñu am résultat bu ñu ñëwee si yow seen jàngoro saafara ndax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpital yi ñu ngi jéem a am ak yow collaboration pour jëm pour seen faj a mën a yomb

Mhm. dañuy composé di faj mhm. de théorie du bind mhm. xam nga musna man damay naan tramadol je suis sous tramadol depuis 3 ans à cause de tramadol bi nekk ci bir ma dem ci ben pharmacie mu ne il faut ordonnance xamoon na man luma ma bëgg ma am ko ba mu j'ai pris de 1000 paquets de tramadol fii tolee loolu sax am naa ci plus de 1000 paquets hein? loolu la mel xawma tubaab yi ñoo leen jàngal hypocrisie xawma te ñoom dañoo fàtte ni tubaab bëggul nit bu ñuul di avancé bëgguñ ko mais médecine bii may def ni bii mu neex leen mu naqar leen occidentaux yi dinañ fi ñëw dinañ fi faju man maa la ko wax mu yéex mu gaaw laa ci yemale génnuma àdduna nag deewaguma tànk américains yi occidentaux yi ñoo ngi fi di faju maa la ko wax j'ai même pas commencé mënuñ ma gàllankoor ci dar nak nañu dem dévisser sama roue auto nañu xaar ba ma xey ñu dem sama kër dévisser yenn roue yi nañu poser ay bomb sama auto hé hé nañu dem ci sama parking yépp nañu def lu neex mënul luñ ma tar ay ni mais jàpp naa aussi euh, waxtaan bu amé seen diggante tamit aussi di ngeen je ne cherche pas mais pour ñi nga xamante ñoko ñoo ko soxla tëdd ci hôpital yi tamit yaakaar docteur Abdoulaye Diallo te ñu yeggee ci ñoom soxlawuma len mais ñoom xam naa ne ñoo ma soxla mm-hmm. te tôt ou tard ça ne viendra pas de mm-hmm. ci kaw lay jógee ñi leen moom ñoo leen ñoo leen di opposé Diallo mm-hmm. incha allah. mais bu boobaa Diallo pare na pour dimbali ñi nga xamante ni ñooy askan bi nekk ci jafe-jafe. mais j'ai vu pour ça d'ailleurs ma ñoom laa wax. mais les malades kay ku ñëw ma faj la. nan nga jàppee loolu. man par exemple ku leen devancer. ñoom ñoom c'est que dañoo gëmul ni diabète day wér.

est-ce que jigen buy tour mën nañu ko ñu ci tous <laughs> ñun rek Sénégal euh, est-ce que mën nañu fajj dof. Euh, uh-huh. est-ce que mën nañu fajj rap luñ ci man est-ce que uh-huh. mën nañu ko opère mu uh-huh. comme expert bu melni yow avez peut-être am chance tok ak yow laaj la rek tay dañuy là tay sax lay wax duma Sénégal kessé ku ñu mais buñu xolé 99% yépp buñu fa juggé duñu fa am luñu bëgg. ça c'est le c'est tout le monde qui le dit le plateau médical sénégalais est trop faible. lan mo waral lool lan la xam-xam dañ fay woté mo fa dess koku duma ci wax duma laal xam xam jàmbur xawma ma jang ñu jàng. Mhm. peut-être que ils n'ont pas de moyens. Mhm. moyen bi aussi di xaar du wara juggé pour ñu mëna a satisfaire malade yi tamit duñ ko am. <laughs> du de est-ce que yéen a ngi gis video bii di circuler sur le lait rek bi ñuy jaay ci marché bi déjà. Mm-hmm. le lait. Mm-hmm. meew bi ñuy naan fii rek baaxut. <laughs> dégloo vidéo boobu. Mm-hmm. reportage boobu ci France 24. <laughs> est-ce que gisoo jus jus de bissap nga defar ko fii yow nga def ko sa frigo. yaa ko def yaa ko defar. trois jours mu périmé mu yàqu nga tuur. ñoom ñu defar benn jus def ci ay composants du bissap kese de. multivitamine bi wala multifruit yi ñu composé ko. Mhm. def foofu un mois ñu def ko ci conteneur. Mhm. mu def un mois 15 jours. mu mhm. ñëw port. mu yàgg fa mu dugg ci grossiste yi grossiste yi téye ko foofu 3 mois 4 mois. mu dem ci boutique diverses yi. boutique divers yi téye ko foofu un mois 2 mois 3 mois nga jënd ko nga def ko sa frigo. nga naan ko ñu ne périmé wul. léegi man produit lañ def ci biir. jara lu jar laaj xam la aussi. Hmm? Mm-hmm. ceeb bi ñuy lekk fii boobu la européen di lekk. Mm-hmm. am lekk sax fii Sénégal am xam seen ceeb ndax dina jóge Sénégal. même suñu ndox bi ñuy naan. Mm-hmm. xelil ci robinet nga def ko ci bouteille. wala nga def ko ci kopp 24 heures. nga tuur ndox mi. boo laalee ko kopp bi ci biir da gis mu ratax day mel ni laaloo. yu ci y' a problème. Yo sucre bougie ñuy jaay Sénégal sax. sac de sucre en poudre oui. kenn defu ko ci sachet. Bougie de sucre Mauritanie wala sucre Gambie sac bi dafa plastique ci biir. li ni war a wax moo li ñu war a wax moo bëri mais dafa mel ni nag euh, nan laa xam ne milieu bi dafa am xaalis ba ku jug rek bëgg cee dugg gis nañ ci ay naxaatekat gis nañ si ñoo xamante ni aussi tamit seen xam-xam mënul sax faj góom mais dañuy ñëw ne mën nañoo faj li nga xamante ne sax mooy loxo bu ñu dal. ça c' bëgg lu yomb. Mhm. bëgg nekk sëriñ fekk ne ko sëriñ bëgg nekk fajkat fekk ne ko fajkat. Mhm. loolu nag dèjà xam nga ñoom ñoom tubaab yi wala ñuy naan seen bopp moderne yooyu yooyu la gis sax moo tax ñuy ñuy bañ dem ci Euh, garabu olof mhm. comprendre mhm. effectivement loolu ça existe mhm. ay nit xam ne garab poftal bi day faj li wala garab bi day faj li garab bi day faj li rek dem jël rek toog néegam naan day faj yow jàngoo xamoo dosage et c'est vrai en plus loolu ça tue les gens ils ont raison mais pas quand même pour certains cas communs. ñun il faut pas qu'ils généralisent ñaata faux docteur nga gis ñaata faux gynécolo nga gis ñaata faux dentiste nga gis Hmm? Mm-hmm. man am naa rakk boo xam ne. Mm-hmm. je crois que affaire dentiste ci Sénégal mu <laughs> surtout bu xale yi. Mm-hmm. moo ci raw Sénégal yëpp. Mamadou Tidiane Diallo. <laughs> ñii day ñëw sax université di joxe cours sama rakk la. il est en France actuellement. te ba léegi mu ngi jàng parewul. te moo fi raw nag. Hmm? sama nijaay mun naa ne moo raw Afrique bi mu daj ci alxuraan. mooy du Boussa kii di organiser concours euh, alxuraan ci Sénico mhm. dem leen ijaaza achara la am mhm. Mhm. su doo gis mu mu feeñal boppam li làqu ci ginnaaw bëri des choses qu'on li ma la wax la rek su ma la nee ñii di wax ci YouTube di mbele mbele yépp insha allahu ñu tëj seen ci YouTube dinañu noppi dootuñu wax dina leen dàq ci dëkk bi mm-hmm. boobaa man kese maay des ci terrain bi xam nga lu tax mm-hmm. déggu du ma dégg lu mu mënul mm-hmm. du ma wax lu ma mënul du ma dugg ci lu ma xamul du ma la wax ba mu neex la du ma neexal nit boo toogee sama kanam faale ma li nga yor li ma yor laa faale faale wu ma sa personnalité sa personnalité la laa faale xam nga boobaa kooku moom yàkkamtewul lu dóor

ku am city day am faiblesse sexuelle fajal city bi rek mën na wér nga yem ci 30 000 bi mënoon naa ne city 30 000 bi ngóor bi 40 000 70 dugal sama poche boo ñëwee ma lay def moo gën a bëri da nga naan déedéet fajal city bi 30 000 d' abord 3 semaines ñëwaat nga commencé arthrose pour 3 mois mois bu nekk 40 000 mënoon naa jël city bi ak arthrose bi 70 000 dugal sama poche wala ma jël arthrose bi 40 000 moo gën a bëri Hmm? kenn mënul faj ngóora mu wér man de su ma la joxee sama garabu ngóora doo gis résultat bu dee da nga am kolopati mhm. wala hémorroïde mhm. su ma sama garabu ngóora fekk nga am colopathie wala hémorroïde doo gis résultat il faut nga faj colopathie bi mhm. wala hémorroïde bi nga faj siti bi nga doog a faj ngóora parce que man su ma faj ngóora nag du ay garab nga jël rek nga nekk góor benn guddi dedet man dama lay ramener sa ngora à l'origine mm-hmm. appareil bi yep lay defaraat nga normalat amar sa appétit sexuel sa awra ñëwaat mm-hmm. eh, nga du du ay affaire yu yàq quand même mm-hmm. xolal garab yi ñi jaay ci yenn boutique yi ñi koy tuddé aphrodisiaque demal jënd ben garab pharmacie nga nan ko nga baña def rapport le lendemain fi day metti sa rein day bëgg toj <laughs> donc y a danger te na aussi ñu ne ci ménage yoo xam te yooyu. man sama garab day maîtriser xol boo ko naanee. Mhm. damay xool rythme cardiaque sa rythme yow mënoo am problème kër nga ñëw ne ma jox ma ngóor ma jox la ngóor c'est pas possible. Mhm. dama naan ñëwal ma faj la xol bi même boo naroon opé ñu jox la rendez su ma la fajee kat semaines xol même bu dee valve bi def bouchon boo delloo dañ lay naan y a rien soo paree ma faj la ngóor mhm. est-ce que dégg nga mu baax. xam nga xam naa aphrodisiaque mun naa dajale léegi-léegi jinjeer petit cola bisaab lem citron kooku ñëpp xam nañ ko mhm. banaan sax banaan banaan rek nga tappee ko guddi nga def ci lem mhm. soo demee tëdd ak sa jabar eh, boo moytul bu yeewoo suba si day naan alaji mhm. mais respect mais duma ko def aphrodisiaque la boo ëppalee dosage bi nag gingembre 5 kilos ñu defar ko ci moulinex petit cola ñu def ko ci moulinex 5 kilos ñu boole ko deux arbres foorul ah nga jox ko nit xoolal bu ko nit ki naan sax bëtam yi day bleu il voit du bleu nit ñi duñu moytu nit ñi est-ce que mënuñu moytu

mën na saa manqué trois semaines yi parce que si bouteille ngay naan mën nga mën nga mun jeexal avant trois semaines macha allah loolu tamit eh, di lu ama ama am solo mais rek ba tey rek ñu laal tuuti rek ci li nga xamante ni jamono ji mooy actualité jàmm jàll ñu laal tuuti rek ci xew-xewu jamono ñu xool Sénégal jamono ji ñu demi rëq-rëq yi bëri na eh, ñàkk confiance ci góor ñi ak jigéen ñi bëri na ba dañuy seetul aussi sax suñu ay jigéen nit ñi mënatuñu am ci ñoom ay confiance ndax eh, ñaawteef bi ñuy dëkkoo ak ñun wala góor ñu aussi di dëkkoo ak ñoom ñaawteef ba récemment rek sànq ñu ngi am benn actualité suñu doomu Sénégal di yëngu ci wàllu musique am jaaru jëf ju mel noonu ci réew mi naka nga gisee. jëf lan nekk ak góor di fanaan ak moom te du ngeen dëkk wala ngay jël ay video ay photo di ci chantage nit ngir mën a am ci moom alal loolu nag nga ko gisee ci Sénégal. internet dafa teel a ñëw ci ñun. on ne nous a mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. pas préparé à ça. Sénégal ngay gis kuy connecté guddi gi yëpp. suba war dem école. ils n'ont même pas de programme. nit kay dafa am ay de sommeil yoo am. nga topp xale yi góor yi di leen mbili mbili di fen di fen di xam nga ne góor kay booy waxal di waxtaan ak moom ba 2 heures du matin 3 heures du matin 4 heures du matin. Mm. góor nga waxtaan ak moom xam ngeen koy ko góor góor góor boobu bu ñàkk jom mm-hmm. amul amul benn ité amul mm-hmm. activité amul mm-hmm. liggéey. di fen. góor bi lay naan wol ma sa awra. nga photo di ko yónni. xam nga ne kooku il n'est pas sérieux il te traite de pute. nga def ko. téléphone sax ci lan intimité kaw néeg ci hmm. ci kaw lal ñu lay photo yow mi gor ya ñak jëm ya dof hmm. nit day xam ku mu sekkal sax hmm. lii yëpp bañ a xam ko andal moo tax bañ a sa place ku jital aduna nak nga am ku jigen koku peut-être alal la yow ya gis borom ku bëgg aduna nga ak wolé nga xol ku muuru ben soxna bu baax. Mhm. mais tu as préféré greffage. Mhm. ba fii. Mhm. ongle ba fi cil, xef cils. clignotant. code phare. plein phare. le nga préféré. Ah. montage. hanche hanche. sein sein moom nga préféré. yaa gis lu baax nga bàyyi dem ci lu bon. yaa bàyyi li yàlla wax. nga topp li Iblis wax. Mhm. donc boobaa loo ci góobee gar ko. chantage sexuel bi am ci diggante xale góor yi ak jigéen te à chaque fois dañuy gis jigéen ñi ñoo ci chantage góor ngir jël sa vidéo boo am say yaa ngi ci wane say awra. xam nga boo yemee xam nga boo yemee ci sa jabar kenn du la chantage. Mhm. jabar bu yemee ci jëkkëram kenn du ko chantage. Mhm. nit kii loo defee wala. <laughs> man kenn du ma chantage incha allah. incha allah. bien que am na ñu créé woon fii que man bett nañ ma xaw man na ak benn journaliste bu jigéen mhm. xaw ma lan jàll docteur Diallo on l'a retrouvé nu avec <laughs> une fille mhm. sama la la ngi nii mhm. fii kat gis nga pour accéder à ma chambre ñaata bunt ngay ubbi ah, <laughs> pour accéder pour accéder rek à ma chambre mu ngi nii sama chambre ak cousin nii ah. ñaata bunt ngay ubbi kat mooy mën a filmer fii mm. man balaa ngaa yéeg sax maa ngi ak samay écran di gis kan mooy yëg mbedd mi yëpp lay gis. Mm-hmm. is s'est enregistré. ah. loolu nu mu mun a nekkee. ah. xam nga. donc nit ki da nga xam sa bopp. man xam nga nekkoon naa ci bërëb boo xam ne c'est-à-dire je suis même sur cette position là jusqu'à présent. boo toogee sama kanam. damay naan lobby pharmaceutique moo la yónni mm-hmm. samay toog sama bureau su ma toogee ma jàng li may jàng ma ne sëñ Touba àbb naa la sa gémmiñ bi nga doon taggee yenent bi mm-hmm. sëñ Fallu àbb naa la loxo bi nga doon bind bi nga doon wérdee di ñaan yàlla mm-hmm. wala bi nga doon tàll sa borom wala yenn Moussa naa Moussa bi mu doon wër yaayam bàyyi naa sama lepp ci sëñ Tuubaa mhm. dindi naa fa sama bop xalifa yalla bi mo fi tok mhm. motax may na gis na yalla bi ne ci man ma gis yalla bi ci mhm. ku fa tok je me dis que ennemi juré nga su baxé fi bu rafété yaa koy nattali su boné yaa koy nattali donc léppay rafet duma la doxaan duma la wax lu ñàkk fayda surtout nak jigen bo rafété na amo chance jigéen bu ñëw fii rafet. Mm. wala sol leen colin yi mm. amoo chance. Mm. parce que du ma la xool boo ma nee salaamaaleykum du ma la faale gaawal ga loo bëggoon laa lay wax boo ma nee salaamaaleykum ne ko nanga def toogal loo bëggoon ma sëgg ma jël sama feuille sama feutre ma commencé bind yenn ay rab yi comprendre nga pour yi ñuy dugal ci si woon ndox pour euh, borom rab yi ma lay déglu nag te man mënuma sax doxaan wala kenn mënuma doxaan parce que sama jawar moo nekk sama ginnaaw mm-hmm. sama doom moo nekk sama ginnaaw sama fiancé moo nekk sama ginnaaw <coughs> kan moom mooy mën a am foofu ci salon ci salon duma ci recevoir ci bayal laay recevoir ngir lan mootu li yàlla wax laa rabu zina bu leen jegee zina jege zina kay bu boo duggee sama néeg hmm. nga tëj bunt hmm. nga toog ma toog hmm. jege nañu zina loolu la yàlla tere soxnay jàmbur dugg ma tëj bunt xalaatuma ko jërëjëf <laughs> macha allah mu doonoon kàddu yu am a am solo rek mbokk yi ñu seqoon ak moom waxtaan ni ma koy waxee rek nit ku yàlla baaxal la ci li nga xamante ni mu di wàllum pàcc mu ciy saafara ay jàngoro nit ñu bëree bëree bari te nag ñu seet si ko amoon ak moom waxtaan euh, dernier kàddu yu la leen doon rek ñu daal di tëj seex bi. yàlla na nit ñi xam dégg bi te topp dëgg bi. fin eh, jërëjëf mbokk yi am na yàlla yàlla nit ñi xam dëgg bi te topp dëgg bi noonee la tàggatoo yi mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax ci seqoon ak moom jotaay lépp rek doon li nga xamante ne nag njëriñ la ak lu ñu ci mën a jàngati ngir mu jëriñu di kontaan bu baax di leen jox dig daje ci beneen numéro. jërëjëf merci beaucoup. il faut pas qu'il généralise ñaata foo docteur nga gis ñaata foo gynécologue nga gis ñaata foo dentiste nga gis. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. man am naa rakk boo xam ne. Mm-hmm. je crois que affaire dentiste ci Sénégal mu <laughs> surtout bu xale yi. Mm-hmm. moo ci raw Sénégal yëpp. Mm-hmm. Mamadou Tidiane Diallo. ñii day ñëw sax université di joxe cours sama rakk la. il en France actuellement. te ba mu ngi jàng parewul. te moo fi raw nag. Hmm? sama nijaay mun naa ne moo raw Afrique ba mu daj ci alxuraan mooy Mamadou Boussa. kii di organiser concours euh, alxuraan ci Senico dem ijaaza achara la am te doo gis mu mu feeñal boppam li làqu ci ginnaaw bëri mhm. li ma la wax la rek mhm. su ma la nee ñii di wax ci YouTube di mbele mbele yépp insha allahu dina ñu tëj seen ci dina dinañu noppi dootuñu wax dina leen dàq ci dëkk bi mhm. boobaa man kese maay des ci terrain bi xam nga lu tax mhm. déggu du ma dugg lu mu mënul du ma wax lu ma mënul du ma dugg ci lu ma xamul du ma la wax ba mu neex la mhm. du ma neexal nit boo toogee sama kanam faale ma li nga yor li ma yor laa faale faale wu ma sa personnalité sa personnalité la laa faale xam nga boobaa kooku moom yàkkamtewul lu dóor

ko am cité di am faiblesse sexuelle fajal cité bi rek mën na wér nga yem ci 30 000 bi. mënoon naa ne cité 30 000 bi ngóor bi 40 000 70 000 ma dugal sama poche. man maay bañ. boo ñëwee di faj arthrose danga ma lay def boo lee ma jël 40 moo gën a bëri danga naan déedéet fajal cité bi 30 000 d' abord 3 semaines. nga ñëwaat nga commencé arthrose pour 3 mois. mois bu nekk 40 000. mënoon naa jël cité bi ak arthrose bi 70 000 dugal sama poche. wala ma jël arthrose bi 40 000 moo gën a bëri. Hmm? kenn mënul faj ngóora mu wér man de su ma la joxee sama garabu ngóora doo gis résultat bu dee da nga am kolopati mhm. wala hémorroïde mhm. su ma la joxee sama garabu ngóora fekk nga am colopathie wala hémorroïde doo gis résultat mhm. il faut nga faj colopathie bi wala hémorroïde bi nga faj siti bi nga doog a faj ngóora parce que man suma faj ngóora nag du ay garab nga jël rek nga nekk góor benn guddi complicated man dama lay ramener sa ngora à l'origine mhm. appareil bi yep lay defarat nga normalat amar sa appétit sexuel sa awra ñewat mhm. eh, nga mm, du du ay affaire yu yàq quand même mhm. Xolal garab yi ñi jaay ci yenn boutique yi Ñi koy tuddé aphrodisiaque demal jënd ben garab pharmacie nga nan ko nga baña def rapport le lendemain fii day metti sa rein day <laughs> y a danger te na aussi ñu ne ci ménage yoo xam te yooyu. te man sama garab day maîtriser xol boo ko naanee. Mhm. damay xool rythme cardiaque sa rythme yow mënoo am problème kër nga ñëw ne ma jox ma ngóor ma jox la ngóor c'est pas possible. Mhm. dama lay naan ñëwal ma faj la xol bi même boo naroon opé ñu jox la rendez-vous su ma la fajee 4 semaines xol même bu dee valve bi def bouchon boo delloo dañ lay naan y rien soo paree ma faj la ngóor mhm. est-ce que dégg nga mu baax. xam nga xam naa aphrodisiaque mun naa dajale léegi lay jinjeer petit cola bisaab lem citron kooku ñëpp xam nañ ko mhm. banaan sax banaan banaan rek nga tappee ko guddi nga def ci lem mhm. soo demee tëdd sa jabar eh, boo moytul bu yow suba si day naan aji mhm. mais respect mais duma ko def aphrodisiaque la boo ëpple dosage bi nag jinjeer cinq kilo ñu defar ko ci Moulinex. petit cola ñu def ko ci Moulinex 5 kilos. ñu boole ko dosage boobu foorul ah nga jox ko nit xoolal bu ko nit ki naan sax bëtam yi day bleu il voit du bleu nit ñi duñu moytu nit ñi est-ce que mënuñu moytu.

mën na saa manqué trois semaines yi uh-huh. parce que si bouteille ngay naan mën nga mën nga mun jeexal avant trois semaines uh-huh. <laughs> macha allah mu doonoon kàddu yu ama am solo rek mbokk yi ñu seqoon ak moom waxtaan ñu ma koy waxee rek nit ku yàlla baaxal la ci li nga xamante ni mu di wàllum pàcc mu ciy saafara ay jàngoro nit ñu bëree bëree bëri tey nag ñu seet si ko amoon ak moom waxtaan euh, dernière kàddu yu lan leen doon rek ñu daal di tëj ceex bi. yàlla na nit ñi xam dégg bi te topp dégg bi. fin jërëjëf mbokk yi yal na yàlla nit ñi xam dëgg bi te topp dëgg bi noonee la tàggatoo yi mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax ci seqoon ak moom jotaay lépp rek doon li nga xamante ne nag njëriñ la ak lu ñu ci mën a jàngati ngir mu jëriñu di kontaan bu baax di leen jox dig daje ci beneen numéro. merci beaucoup.